maa ngi tudd Amina Thior euh, dëgg judo, judo fi yaro fi magge fi <laughs> mangi def karate, nek Ndorong karate club bo man mangi ngi tiré instant yi senior fa laay tiré léegi mën nañ ñëwaat tuuti rek ci kañ nga dugg ci karaté ban année la ak jaar-jaar yi tuuti bu fekkee mën nga ñu ko résumer karaté mom bon comment dama cee commencé à bas âge presque bu may am ay gens huit ans dix ans yoy non mais mangi ngi débuté tamit euh ndangan fala débuté ci seen say Moussa Moussa sar moom mi nga xamné mo nek actuellement le président de la ligue maa ngi koy au passage aussi parce que bon je pense que le rek base base bi la ci walum karaté bi euh aussi plus particulièrement ci kata bi nga xamné mom lay def defe naa base bi bu baaxutoon je pense que du aksi fini. Ni ni ñi ñi nga xamné ñoy ñoy def karaté bon xeyna ñom dinañ comprendre bu baax limay wax mais lepp lo gis rek base bu baaxé rek da am niveau bi pour niveau bi nga nga yomb ci bon je pense que côté aussi dama ko ci euh, bu baax mi nga euh, la motax nga choisir karaté par rapport ak yeneen discipline sportive nga karaté dèjà lu tax ma choisir ko dafa nekkoon da man dama yàgg bëgg sport nag vraiment te tamit dama jógee ci famille boo xamante ne dañoo bëgg sport dèjà euh, tonto Bira Sène mi nga xam ne moo nekk président CNG moo sama yaay ñoo bokk ndey ak baay kon dèjà rek ci famille sportif laa laa nekk bon dama dama cee dama cee commencé à baage âge bëgg ko waaw loolu moo tax.

Sommes compétition au niveau national international c'était en 2017 laa njëkk eu champion Sénégal cadette eu ma catégorie après j'ai eu une sélection au niveau national aussi ci équipe nationale ci laay intégré équipe nationale en 2018 Nous convoqué nous pour nous représenter Sénégal euh, pour zone pour championnat d'Afrique zone ouest aussi Amn'a deux fois euh, médaille d'or du championnat d'Afrique zone ouest aussi, moi, j'ai participé au championnat d'Afrique au Maroc. Mais j'avais perdu en demi-finale. Aussi, madame, finale de bronze, perdre quoi. niveau euh, international comme tout le deux bon Afrique ko mais euh, compétition euh, mondiale euh, participer participé non non participer parce que fédération a parfois dañuy am difficulté pour gagner des billets déjà nous avons waroon Turquie au championnat du monde le 26 mais ba fédération waxaguñu dara ministère bi aussi waxaguñu dara kon duñ mën participer ci ci ci championnat du monde bobu non. donc yéen da ngay am des fois possibilité wu participer ci ay compétition mais doñ am moyen yi yob non duñ am moyen parce que parfois ministère bi du du mën am yenn moyen pour jëndal ñëpp billet aussi difficulté bobu mom defe naa moom armation yëpp ñi nga ben ben benn partie bi lañ la jëndal billet rek comme comme genre kata dafa xawoon difficile tamit. mais la part combatant yi la ñuy gën a yóbbu yóbbu au niveau international. Mhm. parfois dañuy am ay difficultés aussi ci localité surtout Kaolack tamit surtout Kaolack parce que tamit yombut nga nekk jigéen nekk ci milieu bi yow kese je suis la seule unique fille boo xamante ne maa ngi def kata seule unique laa ci Kaolack bii nii man kese maa fi def kata au niveau national international loolu yombut mais pour ñu gars yi nañu gën a bàyyi xel ci côté boobu noonu surtout autorités yi ñu xaw ñëw pousse tuuti. don ñu xaw ñoo pousse tuuti rek ba ñu aussi xel bu baax baax parce que tamit lii yombul vraiment lii yombul sama début carrière ba fini je pense que amagul kenn koo xamante ni dafa dafa gum na ko ci kata fii nii ci Kaolack loolu aussi bon yombut vraiment. léegi yéen euh, voyage yi di def en général yéen a koy liggéey seen bop wala état rek moom mooy décider pour ngeen dem euh, defi voyage niveau national wala. national comme international. non non national ñu ñooy liggéeyante suñu bop passe engagement tout lépp lépp ñun ñoo koy génne surtout suñu parents yi tamit dañoo sonn ci ñun vraiment samay frère frère et sœur tey jii mu agsee fii nii yàlla xam na ni yàlla ak ñoom ñoom a tax parce que ñoom ñooy yëkkati seen xaalis jox la nga dem da ngay entraîner nga dem ñu jox la xaalis nga dem engagé wu passal sa bopp aller retour dem ñëw te daanaka ab benn benn médaille boo xamante ne yow bon benn sagaru médaille lañ lay jox après nga ñib si loolu boo koy xalaat sax danga naan damaa war a bàyyi mais sa amour ak sa passion ak sa passion moo la ciy bàyyi parce que karaté bi ñun dañoo gëm ni que mën nañoo àgg feneen fu gën a sori fii nii vraiment côté autorité yi daal war nañ ñoo jàppale ci côté boobu. yaa ngi wax ci côté moyen yi autorité yi bàyyi leen xel mais aussi euh, est-ce que ñom dinañuy sentir ndam yi ngeen di jëli di ko indi est-ce que euh, niñ leen wara accueillir ak leen ci euh, jappalé est-ce que est-ce que lolu ñong koy def. non ñom noonu defuñu ko parce que vu que de dem Mali 2020 championnat d'Afrique zone ouest ba ñëwee sous préfet accueillir nañu mais ba légui limu wax ñun gisuñu gisuñu benn acte bo xam mom def nako te pourtant ñun ay doomu Kaolack lañu. ñun war nañoo gëstuwaat bu baax a baax parce que nga dem beneen dëkk rek déjà loolu ndam la waxtuma laa nag nga ñëw andi médaille door loolu rek loolu fierté la ci ñun fierté la en tant que Kaolackoise aussi loolu fierté la vraiment autorité yi moom war nañ ñoo bàyyi xel bu baax te xam ne karaté Kaolack bii nii ñun ñun ñun ñu ngi koy doxal boog ñun ñu ngi koy doxal donte ñoom xamuñu ko mais ñun ñu ngi koy doxal bu baax lii daa nekk loo xam ne ñun dañ koo bëgg xaaruñu ci kenn parce que ñun ku ñu dimbale ñu dem ku ñu dimbalewu aussi dañuy dem parce que suñ passion ñun ñoo ko bëgg ñun ñoo choisir def lii kon ñun li moyen buñ ci mën a def rek dañ ko ciy def dèjà ñun kimono yi ñuy sol rek yàlla xam ne dafa cher bu amul 150 mille doo sol kimono bu baax kon dèjà loolu dafa dafa métti loolu sa famille bu la jëmee kimono bu baax ñi xam karaté xam nañ bu baax li may wax 150 mille boo ko amul doo am kimono bu baax kon dèjà loolu dafa métti loolu say fa say rek ñoo la mën a jàppale ci côté boobu te aussi dama leen remercier bu baax samay samay mag. yalla xam ne dama dama content ci ñom parce que parfois parfois dal day metti day metti ci ben côté bi. Mhm. d'accord dernière prestation bi nga def euh, week-end bi la mën nga ci wa wa euh Open de Dakar samedi bi passé et c'était la première fois tamit ma participer ci Open de Dakar mosuma cee dem mosuma cee participer c'est la première fois aussi ma content ci lool tamit ci niveau bi nga xamante mom la fa mom la fa jëlee di euh, euh di argent moy ki di médaille argent la fa am. aussi loolu tamit mbégte la tamit. Mhm. yan moo ci topp yan activité moo ci topp euh, nga ñaanal autorité aussi ñu jàppale leen si. autorité championnat d'Afrique yi incha allah championnat d'Afrique ñu ngi ci euh, mois de novembre la incha allah bëgg nañ gars ñu gën ñoo jàppale tamit ci côté boobu noonu ñu gën ñu autorité yi nañ ñu bàyyi xel karaté bi maanaam ñu ngi andi ay médailles yoo xamante ne ñoom yëguñu ko sax yëguñu ko. mais ñun ñi xëy na li ma ko li may wax rek loolu laay waxaat lii amul rek moo ñu ci bàyyi mais fu nekk nekkutoon loolu konoon toog nañ lem nañ ci suñuy bagage mais autorité nañ ñu gën a bàyyi xel tamit surtout ñi nekk Kaolack tamit fa laay gën a man falaay laay gën a accentué wu parce que ñun Kaolack lañ nekk ñu mën euh, euh, kii nii Omar Diop Omar bii nii Kaolack la nekk man ak moom dong ñoo fi doon kataayis dafa métti man ak moom dong defe naa boo amul courage bi sax da ngay bàyyi dañ boo amul courage dëgg-dëgg da ngay déjà entraînement yi dafa métti ñun tafi bu ñu entraîné normal sa amuñu ko matériel waxi nopi loolu dafa met yow da ngay jéem def sacrifice wut sa quelque somme dem jëne matériel ñu entraîné kon déjà ki def loolu rek kon kooku bëgg na limuy def dañu am ambition li dañ ko bëgg te gëm naa ne incha dinañ ag fu sori autorité nañu gëna gën a bàyyi xel. léegi euh, pour jéxal defal ñu présentation ki ñu xam num num démé bi ni euh, coupe de l'ambassade du Japon la won man ma jëloon sama catégorie bo maa cadette bii open bi euh, coupe du coupe du Sénégal c'était en 2018 ma jëlone aussi sama catégorie bi may bi may cadette aussi bi open ñaari taliwul euh, open ñaari tali la woon maa jëloon sama catégorie bi aussi la même chose coupe du Sénégal c'était en 2021 junior bi may door bi may door def junior la won j'étais je suis champion Sénégal trois fois xam nga loolu rek danaka <laughs> c'est autre chose ak yi mom danaka régional régional yi la régional yi comme ça genre kafri ay Koungheul yoy non ak Kaolack bu ñu organiser parfois régional damay dem yek gagné ko. Mhm. aussi yi moom médaille de bronze la six 7 euh, médailles de bronze ak vingt médailles euh, d'or ak 4 médailles d'argent loolu rek déjà bon c'est une fierté aussi. te ba léegi euh, autorité kaolackoise yi kenn recevoir la. kenn musul am kenn recevoir ñu ba légui xamna xeyna ñom na ñoom xamuñu am am amuñu yenn information information yi ci ñun mais léegi comme par exemple bu ñu gisee ne enquête 221 ñëw nañ ci ñun wax nañ li nga xamante ne ñun loolu lañ soxla loolu lañ bëgg xëy na ñoom dinañ dinañ xaw a réagir